la la.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 mbokk yi eh, taamu di eh, suivre seen télévision Lamp Fall eh, di bàyyi xel seen émission Jazboul Mouride di jotaay bi ñu jagleel maam sheikh Ibrahima Fall ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax tàmbalee si nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Muntakal Bachir Mbacké di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd weer di nuyu ak ziar Serigne Cheikh Jëmb Fall mi maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd di beral nuyo ak ziar Serigne Cheikh Ngounda Fall mi sunu yaakaar tay ak ëllëg di ñaan sunu borom kattanal ko ba limu yene yéene mamam ju tedd ji mam Cheikh Ibrahima Fall mu defe ko nim ko bëggee te ak mbokki taalibe di am mbégte lool kon si jotay bi dalal sunu bay Serigne Khadim Thioune suñ ko waxé xel yépp dem ci allah rabbuna di jotay bu am solo bo nga xamanteni yeen yéen a ngi koy bu jot si télévision lam Fall si bu 21h45 jotee. di boo xamante ni lépp yi njëriñ la tey nag mu gane suñu ñu si maam Cheikh Ibrahima Fall fas yéene kaa dalal si jàmm gannaaw bi ñu nuyoo ziar suñu jëwriñ sëriñ Maamu Ndaw Baye Fall moom sëriñ Baara Ndaw bu mu Baye Cheikh Ndaw di ko ñaanal suñu borom kattanal ko ci yéene bi mu am liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall. mu defee ko ni mu ko bëggee di ziarale bu baax a baax suñu baay baay am di mu Moustapha Ndaw muy xalifa baay Cheikh Ndaw sëñ Maamu Ndaw mu mel ni tey am nañ gan asalaamaaleykum di suñu baay eh, Serigne Khadim Thioune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 ñu naan baax Serigne Cheikh Jëmm Fall suñu borom doolu ko fa yàggal bu baax ba yéeneem ak pas-pasam lépp mu yàggale ko ci sagoom di ziar baax mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci Jazbul Murid saa su ne ci talaata ci waxtaani maam Cheikh Ibrahima Fall waaye lépp rek ni ñuy def ba man a euh, lëggeel Serigne Touba Cheikhul Khadim te royee ko ci jëmm ju tedd jooju tey nag ñu dalal suñu bàyyi suñu Serigne Serigne Khadim Thioune ñu koo xamante ne bii itam borom xam-xam la jàmbaar di liggéey fii ci télévision bi itam di fi def jotaay yu am solo tey nag mu gane si ñu ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina li ñuy waxee saa su ne rek mooy Cheikh Ibrahima moom euh, murid yëpp am yéene wax ci moom ñëpp ko ñëpp bëgg a wax ci moom ndax na ko mag ñi àndoon a sëñ Tuubaa ñëpp kenn ku nekk am lu mu bind ci moom mm-hmm. incha allah loolu lépp ci kanam tuuti du ñàkk sëñ Xaadim dana ci indi ay leeral incha allah di jaajëfal baax mboolem mbokk yi ñuy topp sëñ Xaadim Badara di rafetlu bu baax a baax tey dalal bi ñu dalal su bàyyi sëriñ Xaadim Cuun mm-hmm. di jégalu bu baax a baax ci yàggee tàmbali jotaay bi jërëjëf euh, sëriñ <coughs> Mamour Ndaw Baye Fall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 وتابعين لهم بإيمان إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإرادة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan ak dañu dund fi ñu mën ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo boobu sëriñ muntaka Mbacké nga xam ne tey moo fi sëriñ Touba ci boole njabootuk sëriñ Touba yi nga xam ne ñoom la bokkal ñëpp ak taalibe yeeg cheikh yeeg ñëpp di nuyu sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moom it moo fi maam Cheikh Rahima Fall di ko nuyu moom njaboot gi ci ginnaaw gépp sa yeeg bokk yeeg ñëpp ak taalib yi di ñaan yàlla yàggal leen fi wéral leen ba kenn ku nekk lii nga jiitee ci kër gi nga nekk muy sa kër maam yàlla defal la fu lu kawe sa njort may la wér ci barke Cheikhul Khadim mm. Euh, di nuyut nag ñi nga xam ni ñoo ma dalal ci kër gi nga xam ni tey damay maa ngi di tooñ sanaa maa ci mbay Baye Fall gi tey euh, muy sëñ Aliou Badar Ndim muy jëkk uppi kàddu gi léegi moom itam taxawaay bi rafet lool moom itam da nga koy nuyu bu baax te di ko ziara mhm. eh, sëriñ Mamour Ndaw moom itam mhm. di ko nuyu di ko ziar taxawaay bu rafet bi ak bërëb bii nga xam ne ñoom ñoo ko séq mhm. muy seen ëtt boo xam ne tey dama ciy dugg si man tu Baye Fall boo fa dugg ngaa xam ne fay duggee eh, mu mel ni sëñ Badara mi ngi laajalee sax ci biir eh, nuyoo bi bu nuyoo bi daano kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall di xam naa laaj la boo xam ni man de laaj nga ma ko kan mooy maam seex hmm. dëgg dëggi maam Cheikh di mën na koo xam. mën na ko waxtaanee. waaye li nu fekk ñu bind ko ba ko ci moom li mu jëf itam dañ koy roy ba nëgë ni. ci yoonu murit loola mën nañ cee waxtaan rek. Hmm. waaye jëmm jëmmam yàlla mi ko bind rek ak ña ko booleel ñoo ko xam. Hmm. waaye du du nun ñu koy wax. Mhm. xam naa léegi ni naa ah suñu xaarim bi bu fa demee tey ñu xam maam Cheikh waaye bu fekkee maa koy xamle man bokk naa ñu ko gën a réere. Euh, maam Cheikh nag ñu baree bari dañ ko umpale waaye bañuñu ko. dëgg la d'accord ko. ku ko xam bëgg ko de. moo ku ko xam bëgg ko. Mhm. ndax lu baax rek moo ko tax na jug te lu baax la nekkan te am na lu baax. Mhm. Euh, kon nag dañ ko umpale waaye ñu ko. bañuñu ko. boo gisee ma ubbi ci nuyoo boobu waxoo la li naa si xusna yàlla moo ñu ko digal mhm. nit amul droit yëkkati aw làmmiñam wax ku jëme ci doomu aadama wax ji nekk lu rafetul mhm. foofu nag borom xam-xam yi ñu gëmul yàlla sax bokk nañ ci wax ju mhm. boo dee jullit rek looy wax mu jëm ci nit daa war a rafet waaw ndax wax ju rafet la ñuy campagne la islam nit bu sa làmmiñ ñaay ba mu ragal la rek ñàkk nga ko du xool say jëf kon nag rawatina koo xamante ni eh, day jàmbaar ci lislaam di mbokkum jullit ànd ak Serigne Touba radiyallaahu anhu kooku kon ku ne war na caa mën a waxtaan. loola moo tax bu ma ñëwee ci ëtt bi tey dinaa jëfandikoo kàddu yàlla googu ci moom wax leen ci nit ñu wax ju rafet. rawatina koo xam ne jëf na lu baax lu rafet la ñu gis. loola daan ne ci maam Cheikh moo tax ñu ñëw tey. bëgg a rotal tuuti ay kàddu rek mën cee dolliku. ñaareel ba dafa am nitu yàlla bu mag. ñu koy wax eh, Abdullahi Tustari radiyallaahu anhu sahdun ibnu abdullahi tustari mhm. bokk ci nit yàlla yu mag yi kooku daraj yu rëy rëy am mu wax ni lam yumin bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mhm. man lam yuwaqir ashaaboo mhm. mu ni koo xam ni wégoo saxaaba yi joxoo leen cër gëmoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ñoo ànd nag moom kon ku ànd ak ku baax ba ñuy wax ku baax di la tuddaale mënoo bëgg ku baax ka bañ ñamu àndal loolu lay jàngale loolu dafay ñëwaat na ci maam Cheikh euh, boo bëggee Cheikh Ahmadou doo ko mën a bañ. Mhm. Mhm. kon rawatina ñun ñu di ay taalibe mhm. loolu la ñuy jàngawaale kon koo xam ni euh, gëmuloo saxaaba yi bëggoo leen gëmuloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam. biñ ko laa laajal waral loolu mu ni euh, man ahaba shay'an ahaba man yuhibbuhu koo xam ni bëgg nga dara danga bëgg ñu ko bëgg. Ah, lu way bëgg da nga bëgg ni ko bëgg té défé na mam Cheikh ni mu bëgg Serigne Touba mëno bëgg Serigne Touba fa noppi nag di dakk ak mbëggam mom di défar sa gas nak di mag gën a bëgg eh. mom ag na fu agul kon nag ku bëgg Serigne Touba di nga xamni kon bëggal nga mam Cheikh nak da nga bëgg ku mbëgg lolu am na te bëgg-bëgg yi mo ñu yobbu ci aduna kon lolu bok na ci li nga xam nañ koy jox la cey topp itam eh, kullu ma khala nabiyyu sahihun walaysa kullu khala nabiyyu sahihun lépp lu yonent bi waxal ni waxal boppam rek wér na waaye nekkul ni lépp lu ni yonent bi ko wax wér na mhm. da ngay naa yonent bi ne te ko mhm. kon jooje wax du wér waaye lu mu waxal boppam moom ngën ji mi lépp na comme koy déggam mhm. déet hmm? wér na de kullu maa xaala nabiyu saxiix lu mu wax lu ne rek wér na lépp lu yonent bi wax rek lu wér la kenn du ko corrigé lépp a baax waaye nag walay sa kullu xaala sa euh, saxee walay sa kullu xaala nabiyu saxee doonul ni kenn ku nekk boo ne yontu bee ndàngam sa wax joojee wér dëgg la ndax dañ koy tuumal ci wax waaw léeg loolu walaa bal na ci Serigne Touba walaa bal ci maam Cheikh léeg nga dégg ñu ni Cheikh Ahmadou Bamba nee ndàngam boo ko xoolee waxu ko mhm. mhm. gaa yi ko dëppaleek jamono rek ngir euh, rëbbee ko xol nit ñi mhm. léeg-léeg nga dégg lu bari ñu ni maam Cheikh ko wax wala moo ko jëkk waxu ko yooyu nag day bari ci jax yi dem dem euh, dem leen tey ak wax yi ñu mën koo bàyyi xel bu baax ci li ñuy bëgg wax lépp nag bërëb bi ñu nekk bërëbu euh, jësbul xoloob la. waaw hmm. hmm. ah, jësbul murid. murid. Hmm. waaw jësbul li muy def mooy li muy tudd mooy jitaay bi mooy lii ñu di murid yi. murid mooy ku jëm ci yàlla. waaw mu ko génne ci baatu irada. waaw lii les yii na yuridoona waj allah yi ci aaya boobu la Seex ba génne yoonu murid. waaw dem ba ni ulaayka umul muflihun ñooñu ñoo texe. ci la ñu génne baatu murit. Mm-hmm. kon bu ngeen andee jës bu murit lii ñu di murit yi ñu jëm ca yàlla ngir dox bi gën a gaaw. Mm-hmm. ndaxu xol la. ndax euh, jës bul xoloob ila alamil xuyub mm-hmm. waaw day ñu di jëmmi leen ci yàlla ma xam ne secret xol bi mhm. kon jitaay bi daa war a fàttali si kar mhm. daa war a fàttali ki doon liggéey war a fàttali maam Cheikh ko defee jitaay boobu loolu yaa nekk jitaay bu jëriñe bu ñu ko mhm. tegee lépp ci diine ndax yonente bi ne la alayhi salaatu wasalaam al majlisu saalih yukaffiru anil mu'min alfay alfi majlisi min majalisi soohi mu ni benn jitaay bu ñuy waxtaanee lu baax dana la kaafaraal dana deñal ci yow junni yi junni yu ñaaw yow musa teew ndeke kon nit mën naa am jitaay yu gàtt nga defee bëriwut waaye yàlla mën na ko jàppee junni hmm. ndax bu neexee yàlla taaba mu jàppee minute ay ay ay jitaay yu bëree bëri moo tax mu ne benn jitaay bu ñuy waxtaanee lu baax ak gaa yu baax yi dana raxasal ña fa teew ña koy diglu junni junni jataay yu ñaaw yoo xam ni musañ koo teewee kon loolu ba te am póot la moo xam ni hmm. buñ dee diglu waxtaan yi te lépp tege ci diine hmm. day raxasal ay jitaay nit ñu bëree bëri euh, ah maam Cheikh day xanaa nu jéem ci rek tuuti rek. ci mhm. laaj boobu nga laaj. <laughs> waaw laaj boobu rek nu jéem ci tuutee tuuti. Mhm. Eh, ba xam nu ciy mën a xam. Mhm. Eh, téere yi nag wax nañ ci lu bëree bëri. boo xoolee Cheikh Mouhamadul Bachir wax nañ ci dañ ci ñëw. bu ñu xoolee ci sëñ Ahmad Lamine Diop wax na ci. dañ ñëw. muy Irwa na di ñëw na ci. Minanul Miski ñëw na ci. bu ñu xoolee sëñ Ibrahima Diop Masar ñëw na almaxsar yu ñëw na ci. même suñ Bay Jaxate way na ci hmm. eh. Cheikh Rama Fall maam Cheikh Rama Fall wax na ci moom hmm. eh, Cheikh Samba Diarra may wax na ci moom ak ñeneen nag ñeneen hmm. eh, ñu ma tuddul waaye boo demee ci téere boobu ma lay wax noonu tey day wax ni maam Cheikh Rama Fall yàlla pire la dañu uwal wali yu saalix wali mooy xaritu yàlla mooy ñu yàlla féetewoo seen i mbir mu ni ko baax la ko yàlla féetewoo mbiram moom Ibrahima Fall ñu ni ko kooku mooy kan ni kenn la ci murit yu gën a mag yitte ak bëgg yàlla ci la bokk moom maam Cheikh. kañ la gën a jamono mu ni walida baada wilaadati Cheikh bi salaasati sanawaat. Mm-hmm. lii may wax waa Rawdu Rayaahin ñoo bindu téere bi mu nekk. Mm-hmm. Touba. Mm-hmm. te sëñ Amadou Rafa yi jiite leen yàlla na ko yàlla dolli yoon moom itam. amiin amiin waaw gis nga ko. ci numéro 97 ba. waaw. ci téere yu la nekk. Eh, nekk na itam ci téere bi nga xay uh, moo nekk. Mm, beneen téere bu naaru ganaar bi bind la. Mhm. waaye daal lii ma la bëgg wax lii moom ñoo ko bind. waaw <laughs> wér na kay. Mm. mu ni maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi ganee jamono ginnaaw bi Cheikh Bamba ganee àdduna ba dafa mel ni dafa yoxal sëñ bi ba mu am ñetti at mu ñëw. bi sëriñ bi demee tam mu néggandiku ko ñetti at. <laughs> allahu ñetti ñett na acteur bi mi tam ñetti at la. Mm. gis nga xam naa sëñ Xaadim sëñ Xaadim am na ci njàng bu <laughs> yaatu. wallaay ah, ñett yooyu. man xam naa ñàkk sëñ Xaadim am na ci mm. hmm. waaw kon gis nga ñett yi mu boole. Mm-hmm. ñetti àll ko sëriñ bi jiitoo ci àdduna. Mm-hmm. ñetti àll ko sëriñ bi jiitoo barsàq. Mm-hmm. lim doon wut ci sa Bamba te mu nekk cër bu mag bi ko yàlla booleeg moom. ci ñetti ko sàkku am ko ci. cay kon ñetti ñettam yooyu boo ko xoolee neuf lay nekk di juróom-ñeent. juróom nekk na lu ama am solo. Mm. Mm. waaw. Mm-hmm. mu ni nekk na koo xam ni tam murid woon bu dëggal. Mm-hmm. minal muridina as na mm-hmm. bokk na ci murid yi dëggal. dëgg la mais bëggim bëggam sëñ Tuubaa tam dafa nekkan koo xam ne dañ ko cee rey. kenn mënu ko cee jëlee ndax dee moom genn la boo faatu moom kenn mënut laa dekkal ci nit ñi. loolu ko yàlla jox ab cër. waaw yu muy nag moom dafa dañ ko reyan ci bëgg sëñ tubaa nga xam ni bëgg leneen lu nekk moom tu koo gis daa mel ni am néew xam nga néew dee na ci la de. Hmm? leneen mënatu kaa rey de. olof dana lim ni weñ wi daanu na ci soom mi ba dee waaye xaru reyu ko. Hmm. bëgg bëgg ga bëgg kon daal loolu ñu daal bëgg ñu ko teg. bëgg ko teg tey bëgg. kon loolu moo dalal maam Cheikh ci Sëñ Touba moom it ko ci bëgg Sëñ Touba. Hmm. waaw daanaka wax naan maam Thierno Birahim li tax ma bëgg ko danoo bëgg tur. sa moom it dañ ko rey ci bëgg sañ Tuubaa mm. wala ma ci téere maam Thierno lañ ko def mm. mu ni man naa ko ndax ñetti mbir mm-hmm. ñu ne ah mu ni li sëriñ Tuubaa def ci moom ba muy sëriñ Tuubaa ba noppi sëñ Tuubaa dénk ko kon dinaa ko xoolee sëñ Tuubaa mm-hmm. waaye bëgg naa ko ngir bokk aw tur bëgg naa ko ngir bokk bëgg ji ba ñu rey rey nu ci sëñ Tuubaa loolu itam gis nga doon na ko waxal maam Thierno Birahim kon maam bokk na ci lool mm-hmm. mu ne maam Cheikh euh, maam Cheikh Ibrahima moom nekk na koo xamante ni ku saxan ci liggéey sëriñ Tuubaa la anna alayli wa atrafa nar allahu akbar bu nit ñi nelaw mom mi ngi liggey kon bari wona ñu bëgg señ tuba waye bu waxtu jot nelaw jotee dañuy nelaw waye bëggum da ko xañal ay nelaw ci jamono yoy mom bu nit ñi ay nelaw lolu mo war mo war mu daan root ak di xam ma de ñew nga xam ni liggey bi jigéen ñi yalla won ci keur señ bi da mu mujjën fété wugo mo leen ko teggel waaw di leen balel di leen rotal ca lolu booba neew nañu gis goor gu yor ak yoya nangu loola d'accord waaw moom kon mu teel am loolu moom maam Cheikh Ibrahima Fall. <laughs> mu ni nekk nag ku ñuy wax joxe ci moom misaal tam dëggu pas-pas. Hmm. ba nit koo xaye dëggooti nga ñu ni Baye Fall nga. ba lépp mu ngi ci téere bi ma wax hmm. <laughs> lu mat a bàyyi xel la. muy nag noonu la ko sëriñ Basiru Mbàkke jàngalee. Hmm. noonu la ko Cheikh Mamadou Basiru Mbàkke jàngalee. waajuru sëriñ Muntaxa mi fi toog tey moo bind lii may wax. ndeysaan. loolu moom dafa dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall ngir bëgg lu leer ci moom ba mu àggee di ko toog laaj ko ñu ko ba nga jëkki gisee sama waajuru Cheikhul Khadim lan ngeen jëkk a waxante mu koy tontu muy bind mm-hmm. nga Cheikh Mamadou Basir yàlla na ko yàlla fayal moo tax mu ne xakka àlliya muridu alkabir Cheikh Ibrahima Fall mm. wa min fursaani niyati tilwa cheikhihi mm. mu ni nettali na ma mm-hmm. muritu Serigne Touba bu mag ba. kon du ndaw. wallaay wér na de ndeysaan. ci hmm. waaw Kabir. Hmm. waaw hmm. ñu ne koo kay mu ni Ibrahima Fall. ah mu ni uwa min fursaani niyati til wa cheikh yi. baatu fursaan day firi kawe. dañ ciy firi jàmbaar. dañ ciy firi ab gawar. lu mu ci jublu mooy ku kawe yéene ci sëñ Touba. daan ni moog sëñ Touba dañoo niroo yéene. ni Serigne Touba yéene defal Mohamed moom la yéene ci Serigne Touba. yéen lu rëy. waaw hmm. ah, moom lay wax dafa niru moom yéene ci loolu. Hmm. dégg nga ko. Cheikh Mamadou Basir wax ni. Hmm. lan la lan la la jëkk a wax. mu ni anna awala ma aqadtu alayhi cheikh radiyallahu anhu min aadi wal bayati fa qultu lahu inni lam yaxrujni min bayti إلى طلب شيخ موصل لم أجد من آلي نور لم أجد إلا طلب الشيخ الموازل أجد من حالي نور حق تندفع أمام ظلمات الخلق وتنجلي بي آيات الحق من لما جيك فاس بما جاكار لك موام جنا ور جيما كدون ور جار تاي بندقار جار فنك نا نعم، بامي يدم تاي بابا sëñ Amadou Ndoumbé Marsil mooy borom tay ba Ndakaar waaye du sëñ Bamba. Mhm. dégg nga ba mu fay dem. Mhm. ndax kooku yàggaat na gannaaw bi loolu door a génn àdduna moom la fekk sëñ Amadou Ndoumbé. Mhm. mooy moom mooy bàyyi sëñ Bamba. gannaaw ba mu wëree ba jaar ci sëñ Muxtaar Touré ba ñëw ba gis li mu bëgg. xam ni maam Cheikh a ngi nii sëñ Touba ngi nii. nee li ma jëkk a fas ci sama xol bi may kóllëranteeg moom ak a moom. mooy maam Cheikh Ibrahima waaw. li ma jëkk a def. fasante sëñ Touba kóllëre mhm. kon maam Cheikh wëllërewu sëñ Touba la mm. mhm. minal ahdi wal bayati mm. dégg nga mm. ci kóllëre ak jaayante muy ñaax ba noppi jaayante nekkul taalibe daa sooman nag sàmman ñaar yi mhm. sàmman na kóllëre gi ba dagg ko sàmman na jaayante bi ba am la mu bëgg moom maam Cheikh ñun ko loo ko wax mun ko man day dama ni sëriñ bi yaa ngi maa ngi dara taxuma génne sama kër man man Cheikh Ibrahima Fall lu may di sàkku sëriñ boo xam ni dana nekk aj àggale ci yàlla ji ma mën a àggale ci yàlla. Mhm. te àgg ah. boobu daanaka ci moom lañ ko jëkk a ci réew mi. <laughs> àgg ci yàlla ndax ah. sëriñ bu àgg ci yàlla. Hmm. boo xam ni dana ma man a àggale. Hmm. moom lay man waaw ko sëriñ boobu damay fekk ci mbiram. Hmm. leer yàlla bu dëgg gi nga xamante ne mooy dàq lëndëm mi fi. muy lëndëm gi nga xam ni moo dox diggante nit ñi ba àgguñu ci yàlla. Hmm. mënuñoo xam yàlla ñu topp bànneexi àdduna. kooku day indaale lumière boo xam ni mooy nit leer googu ba leer gi euh, euh, lëndëm gi daw. Hmm. kon mel na nit maam Cheikh indiwaale na baatin. Hmm. ndax looy wër lu nekk war nga am xam-xam bu lay xamal ni boo gisee lii ngay seet. dëgg la waaw ah, lu koy xamal li leer googu mi ngi fi. waaw ah, loolu lu ma ta bàyyi xel la. ajidu noora xaqin la wax. borom bëti neen mënu kaa xam de. ko mhm. damay fekk ci moom léegu dëgg. muy leer goo xam ne day dàq leneen mi mbindéef yi. Mhm. ba ne nag kéemtaani yàlla yi di feeñe ci moom. kon sëriñ bi am na lumière boo xam ne da ciy niitee. Mhm. ni lii la yàlla bëgg nit ñi ma àgg ci yàlla. mu wane kéemtaani ñu man a toppee yàlla. muy sëriñ boobu lay wër. kon lool mooy wane indaale woon na mbiri boppam yoo xam moo ko mën a xamal yooyu boobu sëriñ ah. yombut na xam ne déedéet boobu sëriñ <laughs> yombut boobu sëriñ yombut waaye waaye waaye taalibe buy ka gëstu loolu wala di sàkk ah, <laughs> <laughs> boole bu yéeme la de muy nag bu fekkoon ni man maam Cheikh Rahima Fall mm-hmm. law lam ajid ahadan mi man asisi fatu illa xabru la balaxa ni sidqu niyati fii amali mm-hmm. mu ni bu mu wëroon àdduna ba mu jeex sëriñ boobu may seet nekkatul ti àdduna ma dem bañ ma ni melokaan yi ngay wër ki ko yor fii la tëdd bàmmeel baa ngi mhm. nee sama dëggu yéene ak sama ite ci moom danaa sax ca bàmmeel bi da ko liggéeyal ba àgg ci yàlla. Eh, itte lu que dëgg la. Ah, ndax léegi fi mu ne gars yi koo ci yabaloon ci bàmmeel yaakaaru fa lu may ñaan ñibbi. ñaan ñibbi kañ. Hmm? waaye moom da da wax hmm? Hmm? daal ko ni indi oo bàyyiwu ko maa ngi jaayanteeg yow. waaye jaayante gii may jaayante yow si du Bamba lii laa ciy sart ba tey déggal gii jaayante inni ubàyyi uka ala an la bul ma jox man man man man Ibrahima Fall mi ne duniyaa saaratin lu toll ni fépp kawar bu utuma ko ci àdduna dara yi àdduna lu toll ni benn fépp kawar wutuma ko ci yow dégg nga ko dëdd googu noo ko jàngatee dina ñëw mu ni ko innama amillahu wa darul axira ñaar doo nga laa fi bëgg am ngërëmal yàlla inna ma amilaaw ma ma dem ba yàlla ne ma jërëjëf gërëm naa la. wa daarul aaxira jox ma këru àjjana. ñaar den ngërëmal yàlla këru àjjana daal moom laay jaayante ci yow. loolu de mooy lépp. daarul aaxira boobu àjjana lay tikki. Mhm. mooy eh, ni ko téere bi jàngale rek. Mhm. alxuraan sax andi na ko. Mhm. boo demee ca jeexitalu mm, sóoratu mm, jeexitalu sóoratu mm, xasas. maa ngi fay wax ni tilka daaru googu may wax. alaxira muy tilka mm-hmm. jànnatu lay tikki. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. waaw kon daa kër googu la bëgg. waaw xam nga badara li nga laaj. ni bu ma fi am bu ma jox lu toll ni fépp kawar. ngërëmal yàlla képp laa bëgg. ak këru aljana. xanaa bu ñu foofu rek. dana jaaxal ñu bari. waaye nag ba mu waxee loolu sañ bi da ko toon naa la indil li waral loolu mhm. ak li ko topp ndax nag fi ne maam Cheikh am na am na lu mu am ci àdduna dëgg la ah? mhm. dina jaaxal nit ñi waaye li si dana ñëw Cheikh Ahmad Bamba tontu ko xultu la woo Cheikh radiyallahu anhu yaa Ibrahim dégg mhm. nga Ibrahim ñuy tekk di ko diglu moom jaayen wax na ba noppi li mu bëgg jaayante ni tekk Sëriñ Tuubaa ni ko ah yow day daa mel noonu niroo ndax yàlla. donc est que. bu ma ñëwoon ci àdduna ma fi dara dara dara loo xam ne yontu moo ko fi bàyyi moom Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Mm-hmm. lu dul biddéew yu ko tiima nag asamaan bi ko doon mbaaral. Mm. donc ñaar jaar na fi asamaan tiimal na ko jant beeg weer yeeg biddéew yi tiimal nañ ko. mais loolee moom sama dëggu yéen dina daa ci mën a sukkandikoo man sëñ Tuubaa ba am na ma bëgg ci moom. kon daa mel ni yéen gaa ngi bëgg a ñëw. dañ ko de. Hmm? li mu doon xool rek bët bee daal tege woon na bëtu di tege na ci jant bi. Mhm. tege na asamaan. Mhm. Seex Ahmadu Bamba ne loolu rek doyen na man. xam ne bu fekkul xadis fekku fi leneen mën na jàpp ci loolu ba am ngërëmal yàlla. ak ngërëmal yonent bu boobu. daal di koy wax ne ko lii nga bëgg de maa mm. yow Ibrahima Fall. Mm. boo xoolee al axsu bi yeddi. Mhm. mu daal mm. wala nga ni al axsu bi yeddi. sëñ teg sa loxo. ci may yàlla yu kaw yu rafet yi yàlla nga koy wërsëgal jaam yi nga xamante ni mu leen tànnal boppam. tey waaw ah, am na may yàlla goo xam ne yàlla koy wërsëgale jàmm. bu mu ko jox rek yaa ko mën a am. dëgg jàmbaar waaw. du njàmbaar ko may du dara. waaw yàlla sama borom ci boppam moo koy jagleel. li ma rasaxoo laaw. bii waxub yàlla rek ak bëgg yàlla yàlla doon la ko defal. ko may naa la jaayante gi. Mm-hmm. waaye rek ci nii laa koy def charte la. Mm-hmm. lu ma la digal jëfal lu ma la teree bàyyil. te xamni duma la jox ci aduna sax. Mhm. mbar moy ronu di wut ker ci bir mhm. duma la mbar ci tol ya ngay liggéey du ci ker gi du fenn. nak njabot ak ker duma la ko jox. Mhm. sekuma ko yow ndax alaaxira nga bëgg ci man. wa jaayante ba boko ko te euh, da na la jaxal ah. xam nga <laughs> yonnati bi alayhi salaatu wa aduna euh, da ko da dafa ñew jigee ko. aduna ci bapam nina na alayya dunya ba may riñaan man Mohamed alayhi salaatu wasalaam dañ ma indil àdduna gaaral ma ko ma fase ko ñetti yoon ko tallaxtuka wàcc naa la wàcc naa la wàcc naa la xoolal ka mu fase muy àdduna ak léppam am na alaaxira waaye am na àdduna dëgg la de aqbali ci dunia illa ya xablu bu biatuha fasale anni kablu mhm. senet bamba ni àdduna damaa jume fase ko waytam ni ko sama sang ba defal man sëñ sëñ Tuubaa fase naa adduna mm-hmm. waaye tey xool ko ah. mooy borom de kon li mu cëral maam Cheikh tam mm-hmm. bu fasee lépp nag di yàggal alaxira mm-hmm. loola ko topp tey jii waaw kon loola bokk na ci bu ñu bàyyee adduna dañ leen di delloo loo xam ne ci adduna dañ ko mën a àndeek waa adduna loolu yàlla may ni leen ko maam Cheikh Rafal nekkal na woon ku rëy te inamal amalu bi niyati nga xool li ma wax moom sama yéene ji ma indi woon moo tax yéene mat na ndax li ànd na niyata ab la ko wala riyee afiya mhm. wane ci akrama dani yàlla day jox ab jaam ci yéene loo xam ne du ko ko jox ci jëf hmm. li yàlla yàllay fay ab jaam ci yéene du ko ko fay ci jëf mhm. ñu ngi ko waral mu li ànd niyata ab la ko wala riyee afiya mhm. yéene mooy dem ba àgg ci yàlla du ànd ak ngistal dëgg moo tax jëf joo waxee yéene ju sell ko laltaay mu dem ba ji gis ñu gis ñu yéene. dëgg la de ba koo yéem. waaw <laughs> ah, dëgg jëf lañ mën a yéem. moo tax nag li ngay defal yàlla bu ko ba di gis luñ ko yéem yéem yéem du yàqu. Mm. ndax la ko jiitu. moo dalan maam Cheikh ci Serigne Touba yéeneen dafa réen. te ba mu jafee yéene mu yéene yéene yu kenn gisul ci mm-hmm. yéene ji rëy mm-hmm. bañ ko fayee nag pay gi rëy mm-hmm. ndax yéene moo dëkk ci ab xol loola bokk na ci li yàlla mayen maam Ibrahima Fall bu ñu xoolee kóllëre gi mu takk Cheikh Ahmad Bamba ci biir jaayante gi woofoo bil aadi. Mhm. inna aada kaana masuula. dañ koy laaj de. kon gisal moom ba tey aaya la jëfandikoo. Mhm. daa takkante kóllëre. Mhm. laqad radiyallaahu anil mu'miniina iz bayyi'uunaka tahta shajara. ba tey indiwaat na aaya. jaayante. waaw ku ne xam na ne bi muy jaayante jullit la. ña doon jaayante ca garab ba ca xare Uday bi ay jullit lañ ba noppi. jullit mooy jaayante. yéefar day tuub. jullit day jaayante. ndax dégg nga aay ba mu ñëw dani la xad radiyallahu anil mu'minina hmm. néewul anil musrikin néewu leen hmm. anil mu'minina la wax hmm. ñu doon jullit ba noppi ndeysaan nekk la ñuy jullit jóge màkk gàddaay ba ñëw di xare ji ñu garanti seen bopp ba bu xare ñëwee du ñu daw kenn ku nekk sa bakkan bi l'islam avancé gënal la ko loolu lañ defoon ci jaayante ga maam Cheikh it jaayante ba nga xam ni Serigne Touba gënal bakkanam li koy yàgg na yàgg na fi yàgg na fi loolu bokkoon na ci li maam Cheikh jaayante woon. Mm-hmm. bi mu jaayante bari na loo yi moo ko dugal ci kër Cheikh Ahmadou Bamba. Mm-hmm. Mm-hmm. muy ormal. te alxormatu xayru min taati. dañ ne warma moo gën topp. warma la gën topp. ndax looy topp boo ko lu baax. dëgg la ah wa ma yuasim shaa'irallaahi. dégg nga ko ca màgg. ku dem defoo màggal bërëb yooyu yàlla màggalu doo amaj. dëgg la de kon la ngay topp baaxul. maam Ibra Fall nag daa war mal Cheikh Ahmadou ba mu dikkee la mu njëkk def mooy néeg bu Serigne Touba dikk mm-hmm. daa jëkk sumi daal yi teg ci biti mm-hmm. kenn ñi meetu la Cheikh Ahmadou Bamba ëndalewu daal ci néeg bi mu dem ba yàgg mu jël daal yëpp génne leen kër gi bàyyi leen ci buntu kër ba xam ni kër Serigne Ahmadou Bamba daal yi ci biti la yem léegi waxuma nag buntu néeg bi mm-hmm. waaye moom ci bitti la daal di yem loolu bokk na ci li moo ko jëkk a def moo jëkk itam jël ay bëtiwam teg ko ci suuf raam jëm ci sëñ Tuubaa di ku nuyu. dañ daan joxe la rek wala ñu jaaru sant. boobu war a maal moo ko jëkk a def. am nañu daan bokk Cheikh Bamba aw ñam di lekk. maam Cheikh Rafal moo fi jëlee loola. moo li ni buñ dee bokk ak moom dañuy mel ni koy nawlanteeg moom da du du suñu morom. bàyyi bu noppee nu barke la looloo neex yàlla ak yorentoom. Eh. bu nu bëggee barke waaye bu nu ànd ak moom du nu am barke. ak nangu dogal ci waaw. mu ni loolu dana waral sa bët tege ci ñam yi nga séenu sëriñ bi war a jël nga jëkk ko seex su boobaa tas nga yaakaaram hmm. dégg nga nan ko bàyyi rek ndax mu wér bu noppee rek hmm. bu ci tegee loxoom rek bu buñ ko toppee bi barke hmm. kon loolu bokkoon na ci li nga xay maam sax doon na ko def ci kër ga kon euh, warmaal bi ak liggéey bu réy bi bari nañ loo xay ci yoon muy mam cheikh moko fa duggal ne mm-hmm. xamuñu kon bu jëkk mm-hmm. loolu bari nañu ko ci méré won lool mm-hmm. lool bari na ko ci méré xamuñu ko ndax bobu xamuñu ko ba ni ñu joggé jógee mbàkke kajoor ñëw mbàkke bawal bari na ay xissa yu neex yu fa nek ndax nangul kenn jiti chanel bamba julli su ko xalat yàkk ji nekkon mbacké mam cheikh rafal nak yalla diko dimbali muy dem di dem ba li dal sahaba yi lu bari dal ko na lu mu am waaw xam nga yonent yàlla Muhammad a salaatu wasalaam mooy làmpub yàlla. dëgg la waaw. Sëriñ Tuubaa làmp la ci yonent bi. bu la neexee indi Omar ibnu Xattaab làmp làmp la tudd. dëgg la Sida Omar làmp la tudd. tudd na làmp. yonent bi tudd làmp. maam Cheikh Rafa tudd làmp. làmp lu yàgg man làmp de lu yàgg la kon. wa daa'iyan ilallahi bi izni. Hmm. siraajan. wa siraajan munira mhm. siraajan munira moo yonent bi alayhi salaatu wasalaam làmp <laughs> buy leeralal ko leeral googu mooy lépp lëndëm ci diine mm. nëratee diggante jàmbeeg yàlla Muhammad net na ko ba mu leer alayhi salaatu mm. moo tax boo demee ci bi nga xam ne mooy anwaaru Muhammad yi min mawaahibi la dunya mm. waaw moom ma koy leeral nee làmp ni muy leerale ci aw yoon ba nit ñi mën a jàll moytu lépp leen lor xam fa ñuy teg seen bopp mais loolu mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci diine yonent bi toog ba yàgg alayhi salaatu mu ni Omar ibnul Xataab siraaju ahlil janna Omar lamp la maanaam baatu lamp boobu laa bëgg ñi koy dëgg xam ni euh, dafa feeñ ci alxuraan feeñ ci sunna lu neexal bu ko fa lu neexale rek da koy yelloo Cheikh Ibrahima waaye sëñ Xaadim daal waaye guddal fan. lu neex ko yàlla siraaj la. lu dégg. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni Omar siraaju alil janna. Mm-hmm. mooy lamp waa àjjana. Mm-hmm. Seydina Omar ibnul Xattaab. <laughs> Omar ñëw ci moom ni ko waaw damaa dégg ñu ni da ngaa wax ni da dégg ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ni man may lamp àjjana mun ko waaw waaw. mu ko dégg mu ne am ni. Mm-hmm. Jibril ñëw na ci man. ni ma yàlla nee na Omar mooy làmpu aljana. loolu de kon Omar mooy siraaju ahlil janna. Mhm. waaw gaa ñi wax bari waaye siraaju ahlil la. Mhm. wa huwa siraaju li ahlil fawsi fii ata alxaqu ma omarin. Mhm. raaya nga sëñ Tuubaa di ko indiwaat. kon kooku siraaj la. Hmm? si bu ñu xoolee maam Cheikh Fall mooy làmp yoonu murit. dëgg la ko indi boobu ndax sëñ Fallu ko ko tuddi. ak kenn du ko dindi. ah. موتا بكو دوم ستم بي واي سيرين باكيفال واي نام شيخ واي يوجم تي لولا ميغي تشيس كي يال نكو يالا ماي باكيفال بريزيدان كاي جي ام باكيفال باخ باخ واخ سي مورو مصال فال موي واجورم بروم خام خام لا كو باخ لا سيرين باكي بو ديمي تي واي موني سراجون كفانا لا دوما بنوري ضلالا وطغيانا طغيانا وعارا بمنتي سراجا كفانا الله دنگا دوما بنوره ضلالا وطغيانا wa aaran bi minnati mu ni maam Ibrahima Fall làmp la boo xam ni ci leeram gi nga xëy moom la ko yàlla jox ca la ñu feggale ak réer ba topp ñu sëñ Tuubaa réer gu nu jàpp ba topp ñu sëñ Tuubaa ne làmp maam Cheikh Fall mënu ko mënu ko dàqal ci akuk beew ak gàcce ba noppi defal na loolu lépp nag ci ay may yu ko yàlla may moom maam Ibrahima Fall ndax maamam la mu ne fa lawlahu ma taabat xayaatun li jinsina wala aasa fi l joodi fardan bi ay izzati mu ne ah, bu doon moom kay suñ dund gi mën a baax waaw ah, moo nu defaral suñu dund ndax moo nu xamal léegi sëñ Tuubaa même ahlu Baay Faal ñëpp buñ duggee ci sëñ Tuubaa tey askan wi ñëpp leen warmaal koo sin mu jox leen cër mu ne waaye kon nag maam Ibrahima Fall moo nu ko defal ci sëñ Tuubaa kon kooku dañ koy sant bu baax a baax a baax boo demee ci Cheikh Samba Diarra Mbaye nangu nag raweem bu mag la waaw jàmbar moom ku ku ku maam Cheikh yéemoon la. Mhm. moom ab Cheikh la ñu bokk Serigne Touba. Mhm. te Cheikh Samba Diarra bi muy dem na ba Serigne Touba wan ko ay jigéenam ca jigéenu aljana waxoon ay ni. na mu waxee woon Seydina Omar ak saaba yi di leen wan seen kër ci àjjana di ko gis moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam Cheikh Bamba gis na kër Cheikh Samba Diarra Mbaye waaw wax mhm. mu ne Cheikh Abdoulaye Fall raw nay maas dam te dee fu ko jot Bamba ku simp mu wéy yaaram bi naam faala ba ku ñu simp mu dina raw ki ñu simpiwul. waaw bokk sax. Hmm? <laughs> kon dañ koo simpee ca fa mu nekk am na fu ñu ko yóbbu feneen. Hmm. ndax simpi moom. Hmm. am na fu ñu lay sampaat. <laughs> ah mu ni siwaan mbàkk yi nu um sadatuna abadan koo xam ni doo ñoom du yow koo xam ni doo ñoom du yow yaram bi naam faala yaram bi naam faala kon kooku wayu na ko wayu neex a neex mhm. dem na ba wax ko naan jëmiwu jiilika waaw fil joodi wa fil karami hmm? lée woonu yow nga daan hmm. yaram bi naam fara ñi nga xay yi dañoo amoon ay mayek tedd nga ñëpp léewoon nañu ak yow maam Cheikh nga daan leen hmm. kon nag yaram bi naam fara bu ko defee kon maam Cheikh loolu bokk na ci luñ ci mën a jàngalee tuuti rek ak euh, diggam ak Serigne Touba ndax bi Cheikh Bamba demee Ndar dem na Ndar waaw. daje nañ ndar. waaw. coorkal tekki na ko ndar. Mm-hmm. bi mu ñëwee di dugg ci bata bi lim géej mm-hmm. ñëw na ci port ci port bi. Dakar waaw. Mm. ba xool nga way ci sëriñ ba way mm-hmm. foofu am na loo fay jàngee lu rëy. keroog bi nga xam ni mbooloo mi daje nañu Cheikh Bamba dugg ci bata bi. ñuy jooy jooy yu métier ka ca magan boobu ci taalibe bi muy maam Ibrahima Fall. ña fa dajé won ñepp di yaakar sonal bamba moy mo ci mag kabiru um la seigne basir wax ka ca hmm. magal ma fal tay bi nga xamni joy bar na ba bari ci la xamal bamba dal di genné taxaw ci bata bi bañ diko seen hmm. ndax da dugg ñu joy nga xamni bata bi ku ci dugg rek do del ci wat ñaar hmm. fofa seigne modou beugé bokon na ca ñu nga taxaw ci ginaaw mam ibrahima fall waaye bi jooyoo bi baree ba bari ba bari change bamba ak yërmandeem mm. kenn seen lu may baatu kese mm. la ñu seen bopp sëriñ bi bopp bi génn ndànk yi feeñ mm. muy taxaw ba ñu seen lii ci moom mm-hmm. ba kenn naatabi mu tàll leen loxo moom sëñ Tuubaa ma mm-hmm. ñu tàggoon mm-hmm. ni irjiu wal sama taat allah awdaatukum man maa wadatu oo sayn wa xasali fi ima yasoo unii irjiu falan yankasira mimma xalaqtu shay'an walaw odun Ende. Saïd Insya allah ilaykum. Hmm. Ibrahima Fall maa mun ko naa jël si legi. Mangi maa ngi liggéey maa ngi ñëw. ca la mbooloo ma ni gafuus nag sëñ di leen ni. ay waay del leen ci kër yi ngeen takkook jaamu Yalla. sax leen ci jaamu yàlla. te xam ne dénk naa leen buur ni musuma koo dénk dara am ci lu ma naqari. bant boo xam ni dama koo samp sama ginnaaw du daanu fekk may ñëw. maa dem maa allah fofu nak gañu daal di wàññiku maam Ibrahima Fall nee na diirub juróom ñetti at yu mank yoy Sénégal Bamba dem ci geejgi hmm. yek na ci sama xol bi lo xamanteni dafa dafa mel dafa mank ci man. Hmm. ndax ñaaka a lu mom face à face. ci réew mu ni foofu daanaka lékkatu mënutuma ñam ñam ndox ba yek ni nan na hmm. duma ñamu ñam ba yek ko ndax bëggum bëgg Sëñ touba mu ne na moo tax keroog ba mu ne cëpp ñew na ba koy boot ko. mu jëm lambinas waaw mmh. eh. mais ba mu déggee ñu ni lambinaas nee na dama ne loolu dogalu bi yàlla la. Mmh. moo tax mu jënd kër gi nekkoon lambinaas. dëgg mmh. <laughs> ba mu jëndee kër gi nekk lambinaas bi Serigne Touba di kii da ko nit carab yenn ko. daal koy teg ci ginnaaw gi boot ko. sëñ bi ni makk makk makk mu doog moom du dugg ci kër gi. sëñ bi ne ko fii mooy fan mun ko mooy lambinaas. mbàkki um nga lambinaas yi. kon yelloo nga lambinaas. <laughs> lambinaas yi. nit ñi seen hmm. lamb yaa ko ub. moo itam waaw xam nga ni muy waxee moo yéeme. Hmm, dafa am um nga lambinaas. Hmm, hmm, um nga lambinaas yi. kon yelloo nga. lambinaas lambinaas. <laughs> waaye ni mu déggee sëñ Tuubaa moo yéeme. mu déggee sëñ Tuubaa. ma nga daal di nag bi ma ko bootee la ma manqué woon dellusi waat na. dégg naa ci mbir moo xamante ne lu ma mitti moo ko fàttalikoo rek mu dem. <laughs> kon ñoom yàlla da na boole woon loo xam ni boole gu yaa yaatu la. boole gu rafet la. maam Cheikh jàmbaar la woon. Mm-hmm. maam Cheikh ku ñu wegoon la. Mm-hmm. maam Cheikh tubaab yeeg ñëpp lañ ko joxoon cër. Mm-hmm. ñëpp ko respecté woon. sëñ Xaadim damaa bëgg sëñ Mamour bala ñuy dugg. daa lu mu junj sànq. da nga laaj ko ko. te xam naa ne dañoo bëggoon su daanelee foofu nga jël kàddu gi ñu relancé waat ko. moy eh, eh, ñetti at yu ko serigne touba jito Daaru Dunya ni nga waxe mhm. ñetti at yi mu liggéeyal Sëriñ Tuubaa mhm. ak ñetti at yu ko serigne touba jitu mhm. nga ne da ko yoxol ni nga waxe nga ne moy juróom ñent nga ne juróom ñent yoy nak lu am solo la fofu jangat gu lo ci jangat rek la ta ñuy lan la serigne khadim jangat ci juróom ñent yoy ñet ñet yi waaw juróom-ñeent moom këlkin bu bax la waaw waaw juróom-ñeent dama am solo boo boolee juróom ñaari juróom-ñeent mooy dix-huit dix-huit moo tax ma la mbiram yëpp day dellu ci jant kon nag juróom-ñeent juróom-ñeent ba mhm. ko tànnee loolu bu baax la ñetti at yooyu te ñetti at yooyu jàngat bi ci nekk yonent yàlla Isa alayhi salaam mhm. risalaam gépp ñetti at la dafa dund 30 ans ñu ne ko ñetti at mu génn àdduna mhm. mm. kon ñetti eh. ñetti yooyu mujj ñetti at mooy risaal yonent yàlla Isa. Isa waaw. kii man sëñ Mamour. <laughs> dégg nga ko bu baax. Eh. man daal sëñ Xaadim daal fi mu ne nii. <laughs> Eh. Hmm? xam naa ni ma jàngate daal jotaay bi. kii man la. mooy lu mat fukki émission. Hmm. ci maam Cheikh Ibrahima Fall. suñu diggante sëñ Xaadim waaw daa mel ne moom la sëñ Xaadim ndax bunt yi mu fi laal yëpp buntu bu bu si nekk jotaay la kat fi na ñëwagut ci turu yàlla ñëwagu ci maanaam Cheikh Ibrahima xoolal xoolal hmm? bisimilah te xam nga rek dafa am benn gis-gis bu gàtt hmm. bu ma ci am sax sax du njàngat ndax matu hmm. matuma ko ndaxte sëñ Xaadim moom dafa aj jotaay bi moo tax fekk ko fa du yomb moom waaw maanaam waaye dama bëggoon rek tey ci gàttal mu wax ni tey Cheikh Ibrahima moom boo ko xam naa sax loolu yomb ci nitu yàlla yi tey boo doon maanaam boo ko doon boo doon jàngat ci nitu yàlla yu mag yi nga xamante ne bii ñoom jaaroon nañ fi maanaam fan fan maam Cheikh Ibrahima Fall ban gis-gis ngay am ci foofu wala wax classé waaye tey boo xam nga eh, dafa am lu ñu dimbali woon lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yaarafu ahlul fadli illaa dool fadli dañu ki gën moom ki gën doo nga xam ka gën moo xam ka gën ci nga gën maam mbir mu nekk ña ca bokk. Hmm. ñooy xamante. Hmm. <laughs> waaw bu bu ma ko bëggee classé ci biir man day mel ni man am naa classe ci hmm. <laughs> a xam classe am ginnaaw <laughs> bëgguñu bekkul kay fii ne maam Cheikh foo natt rek si nuti di am man nga ni man na am na ko rek. loolu rek doy na ci sëkk. bu ko defee nag classement ba moom. Mhm. doo ko mën a indi. Mhm. Hmm. waaw doo ko mën a indi. ndax ndax ndax ndax waxuma la waxuma la moom yëfi boppam rek. Hmm. waaye xoolal euh, daraja yi nekk si. Hmm. feeñal ku jar a feeñ. feeñal waaju baax. waaw euh, foofu point bu am solo la. feeñal waaju baax da nga ko indi muy lu am am solo. te lu rëy la. ndax bi Seex Ahmadu Bamba dikkee. donte sëriñ bi feeñoon na ba ñu commencé dem ci moom. Mhm. waaye ba mu dikkee yi nga xam ne moom la ñu gën a bëgg ñu àndee ko ku moom da koo mhm. jàngale. Mhm. ndax bu fekkee ñu jàngalee waaye day dikk fekk fa yooya. dëgg waaye yooyu moo ko indi. kon dafa mel ne dañ ko da doon yoxal. ba ñu tàmbali mu ñëw. mu doog a ñëw. ndax Sidina Omar xam nga bi muy ñëw euh, Sidina Omar radiyallahu anhu fekk na fa lim. fekk na fa lim di nga dégg sax ñoo la quarante yi nga xëy ñoo dem waaye bari na loo xëy moo ko jàngale ndax dem na ba waa ji tàlle tànk ci kanam yonent mu jël jën da koy dagg ngir bëgg ak taal bi si <laughs> Sidna Omar kon gis nga kooku itam bari na yu mu feeñal mm-hmm. waaye dem na ba nekk na deuxième xalif mm-hmm. kon loola am na lu ci mën a jàngale bari ci moom mhm. te mbirum dañoo niroo ci njëbal googu ko loola lu rëy la nga xamante ni sëñ Mamour mhm. ba mu ñëwee sëñ Tuubaa mhm. ak li ñu waxante si wàllu pas-pas yëpp ni mu toll maanaam nag dafa futiku ngir di liggéeyal sëriñ Tuubaa ban njariñ lañ mën am ci liggéeyal waaju baax rawatina ku mel ni sëriñ waa xam nga liggéeyal waaju baax moom islam da koo digle waaw da koo digle ci lu bëree baree bëri ndax ba nu yàlla digalee rek nii yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wa kunu maa sadiqin ca sunu tawba ndeysaan eh, na ngeen gëm yàlla a noppi ragal yàlla gis nga baat yi day ànd mm-hmm. waaye boo gis muy indiloo rek am na lu muy jàngale yaa ayyuha allazina amanu mm-hmm. bu ngëm yàlla doyoon rek du indi ittaqullaha mm-hmm. ñi gëm yàlla nag bari nañu waaye ñu ragal ñoo néew ragal yàlla ndeysaan fi ne Sénégal boo xoolee da nga naan gëm nañu yàlla waaye booy ragal moom mhm. boo taxawalee kaar bi fii tuuti nga ci yëpp ci ñu ragal yàlla <laughs> ñi gëm nag moom boo taxaw ñu la jël la waaw mm. muy nag yéen ñi nga xam da ngeen ragal yàlla da ngeen a gëm nga ne ah muy na ngeen ragal yàlla gëm ak ragal ba noppi nag ngeen àndeek way dëggu ñi ñetti dara ndax ki li nga am ci lu baax day mel da mm-hmm. di ko ko dootul yàqu. sa ngëm yàlla boo àndee ku dëgg dootul arrière. kon yàlla mel na ni isaare na boobu ab sëriñ. Mm-hmm. àndil na ku dëgg. looloo taxal ne maam Cheikh ba mu ñëwee ànd ak Cheikh Bamba ci dëgg googu. ànd googu nag bari na yu ci mën a am bëree bari mm-hmm. aleykum bi sidqi fa inna sidqa yahdi ila al wa inna al birra yahdi ila al janna. dégg nga xadis bi. waaw ah. dana ne denk naa leen ngeen dëgg. dëgg ndax dëgg moo leen di yóbbu ci mbaax. Mhm. mbaax moo leen di yóbbu aljana. dëgg la kon dëgg googu. Mhm. moom la ñuy wër si kee ñuy àndal muy kóoróo maa saalixiin wa kóoróo maa saalixiin jooje ngir maa dem aljana bokk na ca. mu mhm. tax Cheikh ku dëggal dugg. ku dëggal waaw <laughs> foofu da cee leeral lu bari maam Cheikh sax maam Cheikh dani ah, ah doom. bala ngeen doog ci menn mbir na fekk ngeen dëggu daan ni ku dëgg lu mu dogg mu dog ku dëggu loo dogg du dog. léegi nag boo jiyee gaa yi ngi dogu fu ñu dogoo ci mbedd bu déwén duñ fa jaar ndax du am. waaw wax loolu de dañoo dëggul moom. ah dëgg loolu moom maam sax bala ngeen a dogu ci ah, doom bala ngeen a ci mel ni mbir. Hmm. na fee ngeen dëgg ba noppi wuti leen ak dëggu. Hmm. daan ni lu mu dog mu dog. Hmm. ku dëgguwul lu mu dog du dog. léegi nag ñi dëgguwul ñooy dogu léegi. moo tax kees bar na ci biti. waaw loolu nag dal woon maam Cheikh moom. dafa dëggu woon ñu ànd nag moom te leen ci ak dëggu. kenn ku nekk nag. Eh, wut ngërëmal yàlla gënal la adduna loolu danga ko ko defal moom maam seex mhm. bu baax. Mhm. am na benn ndaje ndeysaan. Mhm. bu sëñ bi mag bi woote woon. ba mu dajalee taalibe yi ni leen ni ngeen xam ni maam Thierno Birahim mooy sama loxo ndajoor. ku bëgg xam dara jaam ci man. ak ni mu toll ci man Sëriñ Tuubaa. na nga xool sa loxo ndajoor ci sa jëmm ji. ndax loxo ndajoor ku ko amul doo mën a dund. doo mën a lekk. kon na foofu mooy sama tolluwaay moo tax ba mu koy dénk ndénkaaneem ya waya sëñ Tuubaa da ko ni àddu dii hmm. yow sama përë gu ndijoor hmm. daan sëriñ ma sàmbat mooy sama loxo càmmeñ përë gu hmm. daan ni nag ku bëgg a xam ni mu toll ci man moom Cheikh ma sëriñ ma sàmba na nga xool sa loxo càmmeñ loxo càmmañ ku ko amul doo ma làpp ba mën a jàmm yàlla kon ñaar ñii moom noonu la ñu mel ci sama jëmm ji te yonent bi dafa na noonu alayhi salaatu wasalaam abubakar nag omar ak Alioune ñii ne mooy samay bët ñii muy mooy samay nopp. Mhm. dégg ko kon sëñ Tuubaa daal doon laaj ñooñu wax loola. Mhm. fekk ndaje mooma maam Ibrahima Fall nekku woon. Mhm. ba mbooloo ku jaar ca moom ci njaareem nga sëñ bi de bëgg lool nga gën a kan maam Thierno ak sëñ Massamba. waaye dañu laa gisul ci jotaay ba yow. mu ne ah wuyu moom ku ñu woo. woote ba kat. dañu ma caa wóolu di ma wuyu kon damaa xam ne sëñ bi moom wóoyu ma ca. Mhm. la tax mi woote yéene ko moom. dëgg la hmm. Hmm. lu mu fa wax mu ko ah nee na maam Thierno di yoram sëñ Masamba. mooy càmmoñam mooy càmmoñam mhm. mu ni yelloo nañ ko ci moom. waaw ñoom lu ñu am ci moom rek jombu leen. Hmm. dénk ko man seex daani ñoom la yàlla boole suñ sëñ Momar Anta Sali ñu bokk deret. kon mën nañoo nekk ay cër ci jëmmam ja. waaye man nag nekk mun maa ne cër ci jëmmam ja. ndax bokkuñu dara ma ak ñoom. Mm. way yooyu nag ñu nga way. Mm. moom na sëñ Modou Kabir Kane way. ndeysaan. naa <laughs> ko laaj sax. Ah, waaw mun na ñàkk. Mm. mun nga see dugg sax. waaw sëñ Modou Kabir Kane moom Cheikh Moussa Ka. Cheikh Moussa Ka lu mu wax. sëñ Moussa Ka moo ko bind jotu ko olofal sëñ Modou Kabir Kane doom ji wala olofal ko. waaw. loola ba ko bàyyi Moussa dem di ko laaj la ko nettali noona. maam Yor Fall ni ko man day mënumaa ne ci Serigne Touba ab cër ci jëmmam jë. Mm-hmm. ndax bokkuñu deret maa ngi moom yàlla jaarul ma ci suñ moomal ansali waaye takk la mm. ni xanaa takk ndeer xam nga ni borom bi waaj du ko ne waajal ñu dem te fu mu dem mu topp ko dëgg la mm-hmm. bu solo solaal na ko mm. ab takk ndeer du faale aw naaj dëgg la mm. ab takk ay dëkk bu gisee jaani ñàngoor du moytu dëgg la ko takk ndeer ma amee kóllëre ci jëmm ji àndal ak ñàkk a ragal ak ñàkk a moytu noonu laa ci sëñ Tuubaa takk ndeeram cay takk ndeer moo tax bi mu koy woy nag sëñ mhm. Amadou Kabir ka di koy ni mhm. Cheikh Ibrahima may takk ndeeru Bamba mhm. tab takk ndeer buy dox du teggi kamb du teggi dëkk du teggi jaani ñàngoor amul yoon xamul daal yi jarnoor tab takk ndeer amul ci kenn soxla dul ko mu taxool xoolul ci baax daa xab la tab takk day takk ndeer di yelwaan di jox Serigne Touba ba làqarit waan lay loola la koy firndeel mi ngi nii foo xool foto Serigne Touba boo génn siin fu maam Cheikh. ak ah, <laughs> te loolu naqariwul waa Mbacke. mukk dégg kenn ku ko mos a opposé di ko kontar. mukk te Serigne Touba ko ko dendal foto yàggee wër di nga dikk kii ko. wallaahi dañ la koy laaj. ba mu des Cheikh Ibrahima <laughs> waaw ndeysaan te li bari itam buñ li gën a bari ci li ñuy bu ñu tuddee Seex Ahmadu Bamba moom lañ ciy tegaat. kon loolu cëram la. liggéey baa ku ko may ak passeport ak njàmbaar la. ndax maam maam Cheikh ñëpp la liggéeyal mm-hmm. waaw ñëpp lu doon liggéeyal. waaw boo gisee Mamadou Fall di wax moom laa ñëw di taalibe kay. ni melal nangu gee taxoon. kon kooku bokk na ci li ko yàlla may mu maam Seex. ba tey ci ànd gu baax goo ngay wax. boo demee ci benn riwaaya. na benn téere ñu fàttali wadoot. Cheikh Sidi Moutar Kuntiyu mu ak ma. muy nettali riwaaya boobu. mu ne bi ne na alayhi salaatu man saxaaba al abraar hmm. ashira maahum hmm. walaw lam yaamal bi amalihim hmm. wa man saxaaba al fujaar xusira maahum walaw amila bi amalil abraar mu ne ku ànd ak waaju baax boo ëllëgee ñu dekkal la nga ànd ak ñoom dugg àjjana donte mënoo jëf la jëf laa ilaha illallah man saxaaba al abraar ashira maahum walaw lam yaamal bi amalihim ci musso jëf la jëf. Hmm. dañ la dékkal nga and ak ñom yow ma xiyam. ci amna firnde. waaw dina ñew hmm. mu ne ko and ko bon itam ba noppi jëf-jëf ju bax hmm. bu ñu dekkal la nga and ak gaa bon ya. xolo fofu ci and bi la konté ndax ki def lu bax ba nopi and ak gaa bon ya. fa gaay bon ya la jëm. mu ne ki def lu bon ba nopi and ak yu baax mënta ki and ak gaay yu baax te mënta jëf la jëf. bu ëllëgee day day dem waaw kon maam Cheikh kuma mu sëñ Tuubaa ki mu wala ni yàlla abraar fi xuraaya mm-hmm. kon abraar a ngi ni ne moom abraar yi moom moom niróo ak ñoom hmm? kon ànd mm-hmm. ci ànd boobu ba tey buñ ko xoolee lu ama am solo la mm-hmm. fu daylu dafay wax ni li tax ànd ak lu ku baax am solo mu ne xoolal xaj bi nga xam ne moo nekkoon asaabu ahli kaaf kaaf yi xaj miir mais moom na nga ko xool bu baax. Mhm. ab xaj la woon. borom xam-xam yi nag wax nañ ci bari lool ibnu abbas ñoom ak ñëpp ci wax. Mhm. boo demee ayatul ayawaan téere yu bari sax ënd nañ ko. Mhm. ndax atul majalis dama koy junj rek waaye dinaa ko yaatal ndax bokk na ci li ma war a waxtaanee. Ah, booba juróom-ñaari gaay yii. ñoom la woon. mooy kan yamliixan mursalinan mursalinan marnuus dabarnuus chaasanus kafastasios xitmiir fàttali ne xidmir moom ab xaj la. xidmir mooy xaj bu juróom-ñaari moo nekk ne waaw waaw. asxaabul kahfi waaw. léegi nag bi ñu gàddaayee buur bi ñu doon sonal moo nekkoon buur bu ñuy wax Daqayanos ibnu Alano Alanos. ginnaaw yontu yàlla Isa la. événement bi am. bi Isa ñëwee ba dem la. buur bi nekkoon nag di sonal jullit yi nekkoon ci diine Isa. moo doon dàq juróom-ñaari gars yi ñu gàddaay ba ko fa. bëgg ñu jaamu xëram. mi Daqayaanos imno Alanus, moy mhm. burba. ba biñu ñu dem nak riwaay ñew ci xajj bi ñu ni xajj ba ab sàmm ko yoron mhm. waye buñ leen rombee nag xajj ba ci bopam muy yëkëti ay baw leen mhm. bo ma nga yëglu gis nga yalla limu def gaa yi dem xajj ba dik ñu dakk ko miraran ñu dakk mu yem ak ba mujj yalla wax lo xajj bi ne keroog xajj bi wax ak ñom da yëkëti tanki kanam yi tanki ginaam ni jottu taxaw hmm. dal ni bu leen maragal laa taxaafoo min nii eh bu leen ma ragal juróom-ñaari gars yi teg di ko xool. mu ne damaa sopp gars yi sopp yàlla loolu da ngeen tax ma sopp leen. gars yi song ko tungoom ko. yóbbu ko ca xonti ma. bu gars yi def seeni nawaafil ak seeni jaamu yàlla mu war jël tànk yi teg tal teg tal nii. tal toogee ko. xaj ba amee na ca loo xam ni fu day lu ne na ba illaa yowmal qiyaam ku jàng alxuraan tuddaale xaj ba wa kalbuhum. ak wér na waaw. wasaami nu kalbuhum mm. ñu koy tuddaale. Mhm. mu ni kon ku ànd ci gaa yu baax saw tur du fay. dëgg la. Hmm. Hmm? Hmm. xool ñaan ak Serigne Touba ndax kii dina fay léegi. mukk eh, muy na xaj boobu tey dañ ko may àjjana. bokk na si mala yi may àjjana. waaw mala yooyu diis la. fukki mala yu dem aljana xaj ba ca la bokk xaj bi ca la bokk te dara mayu ko aljana lu may ànd ak gaa yu baax ci dogalu yàlla waaye nekk ku am sa koy xadara diw dem xaj la mm. ndeke ñooñu ki mala bi ñu gëna a saboté di ko gën am na ci benn bu aljana ci dogal yàlla ñu bax mo ko may fi ne koy las ra di ñaan ba jël turu ñom yam liix ñom ñii mm. muy juroom ñaari gaay nga def khatim bi mm. dugaloo ci khitmir du nangu xaj bi day tëj waaye bo ci dugal xaj ba muy nangu moo tax cheikhul khadim radiyallahu anhu mom ñaan na ci lu bare bare wax Mm-hmm. boo demee ca man la bu euh, wasilatu ruba mm-hmm. dañuy sa borom maa ngi lay ñaan mm-hmm. ci barkeb juróom-ñaari gaay yi ak xaj booba nag mu julli ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam te nag kon suñu wax fu barke nekk <laughs> ku ci am ci téere boobu rek wasilatu ruba di ko jafet léegi nag mala yi ñoo dugg aljana man nga koo andi fukk lañu Ibnu Abbas wax na ko Mm-hmm. maxaatil wax na ko ñu bari wax nañ ko. Mm-hmm. fukki mala. Mm-hmm. yépp am nañu aljana. dañ leen andil li tax ñu am aljana. mu ni yonent yàlla Ibrahima amal na aw nag wu ndaw nag moo dugg na aljana. da cee defoon benn fii daaw alxuraan alxuraan andi na ko. xarum Ismaayila ma ñuy tabaski mi waral tabaski bi ñuy nekk. ma nga àjjana tey. mi ñu jote woon yonent yàlla Ismaayil. Ah. xarma dañ ko ko jote woon. daa jor ruu yonent mm-hmm. mu nga jëm aljana tey xar moomale ak lan gëleemu yonent yàlla saalix mm-hmm. mm-hmm. moom it kéemtaan ko andi woon waaye day bañ mu gudd ah, ah, waaye dañ ko lim rek loolu moom dina am dañ ko yaata dañ ko taxal histoire yu neex ah. jën yi nga xam yi moo moddan yunus ci géej ga yunus yàlla wërsëgale xeetam yëpp gëm ko amuñ ko la fin koko ma aljana àjjana hmm. ak kan eh, baqara bi waral ñuy wax suuratu baqara d'accord hmm. hmm. kooku ma nga àjjana dañ ca leeral mbir ak mbaamu mbaamum asisme aw que le si marra alal xariyati ci baqara suuratu baqara mooy waa ji romb dëkk bu mu assis dëgg la ca baytul muqaddas mbaam maa jëm mu jëm aljana ak kan Namlatu Souleymane xorondoomu yonent yàlla Souleymane moo waxoon ak moom. Hmm? ak kan Hudhudu Souleymane. wala boog. Hudhud bi nga xam ni moo neen ca jamonoy Souleymane Balxiis. Hmm. Souleymane. Hmm. ak buraaxu Muhammad alayhi salaatu wa salaam. xorondoomu Souleymane Hudhudu Balxiis. ak buraaxu Muhammad alayhi salaatu wa yii mala ñu ngi jëm aljana. waaye li ma ci bëgg a yéeme. Mm-hmm. nag wi daa leeral koo xam ne dafa deewoon muy amil. Mm-hmm. bi nekkoon bandi Israël. Mm-hmm. famille boo xam ne ñett ca nekkoon. ñaari doom baay ak kenn ko am alal. te boo rey nit doo ko doon ñaari doom baay yàkkante rey rey seen doom baay ngir bëgg a doon alal ji. dëkk ba bëgg a xeex. yàlla leeral mbir mi ci moom. yent yàlla Moussa ndeysaan ba ñu jógee ne Moussa ci xisa bu ba mu ba ñu reyloo nag. ba ñu reyee nag wa dóor waa ji dee. genn bi wala làmme ñu ca la dekk ni diwoo ma rey ak diw mm. mu ñaari doom bàyyi <laughs> leeral ga mu leeral mbir moom rek moom yàlla mel na ko ci aljana far boo xoolee aussi euh, euh, Aziz du yonent mm-hmm. mbaam la waral rek mm-hmm. Mm-hmm. nekkan ku baax war ga mu waral mbaam ma doon ci waxi ngénteel doom ngénteem ca la ko yàlla may aljana ndeysaan ci nelaw yu metti yaatu yi waaw mooy ma ngi ca bàqara ay xisa yu neex la yooyu am na waaye li ñu ci bëgg a jàng daal loolu ay junj la ci ànd ak ku baax su ko defee ku ànd ku baax daal. Hmm. lu mu bëgg di ko bëgg. te saxaaba yi lool la ñu <laughs> euh, am na ci ñoo xamante ni ni ku mel ni. a naa hmm. hmm. ayoba la tuddan ayoba saxtaani yu boo musaa tudd yonent bi day jooye jooye jooye ba ñëpp lañu maas yërëm ko danaan jooy ba yaram ñu soppi mm. ko muy jooy ba ranqoo yi di ñëw moom loolu mayoon na may defal na ko ci moom ku ñuy wax itam euh, mu euh, Jaafar ibnu Muhammad mm-hmm. boo musaa tudd yoon di mu lu mu lu ma du mën a wax mm-hmm. Jaafar waaw mm. Jaafar ibnu Muhammad daa mel laaj bi ma ko laajoon ko bëgg a tontu <laughs> léegi nag li ma bëgg indi maam Cheikh Rafal bu mu laa dugg jiitaay ba mu sëñ Tuubaa rek moom day sëgg mm-hmm. bu ko xoolee rek moom dem na yoonam mm. ndax bëggeel yu nekkan ci moom mhm. kon cofeel gi mu amal lañ bëgg indi boobu mhm. eh, abou bikrin sadiq radiyallahu anhu dafa am lu ko dal mhm. lu ko dal yonent la ko laaj ni ko waaye yow loo bëgg yow abou ni sadiq lan nga gën a bëgg xam naa boobu boobu mooy doon ponk bu mujj bi leneen la si des moom sëñ xaarim di ñu may beneen jotaay bismillah kon ma ko ni ko loo gën a bëgg eh, mun ko ñetti yëf mun ko uma iya ñetti mooy lan mun ko infaaxu mali alayka Wajulu julusu indaka wa idamatu nasi ilayk loolu de mooy maam Cheikh Rafal xam ah, nga ko hmm. Sidna Abu Bakar waaw loo gën a bëgg moom la yem sallallahu alayhi wasallam laajoon loo gën a loo bëgg ko ñetti ko ban ak ban hmm. mun ko jël sama alal am alal ju bari jël ko di ko ci yow rek mooy benn la nekk ngi tontu laaj ah, ni ko ak ban hmm. ni ko fi yow di gis rek toog fi rek foo ne ma toog fa sa kanam mun ko ak ban ko yow rek dépassé sama alal ci yow. Mm. ak foo nekk ma nekk fa. di la xool rek ñett yi laa gën a bëgg. ñett yi yëpp di xew na diggante sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra. waaw loolu mel na ci diggante boobu bu ko defee kon. Mm. Euh, diggante addiya bi xam naa comme danga ngeen lay xat. waaw <laughs> den ci ñëw. Mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. ndax dafa dafa am day jeex de diggante bi. waaw fi mu ne nii kañ daanaka waxtu kañ. cat la waaye addiya lu am solo la. waaw xanaa nga def si ak tënk waaw ndax Cheikh Ibra xam nga dundam gépp addiya la mm. ndax lépp jox na ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul ba ci mujjug dundam sëñ mm. Mamour mm-hmm. jox na lépp Serigne Touba. lal gi mu tudd mujjee am sax da nga jox sëñ Modou Moussa Mbacké la fi bàcc xaalis voilà mu ngoog 450 <laughs> waaw <laughs> Cheikh bi moom lañ doon na ci 450 ah, ci ko xamanteni dawul daawul da naka mu nañ wax mooy juróom ñeent fukk <laughs> mooy moy ñet ñet yi nga waxal ma tey tolli xolal ci fanweer nga ah. Allahu akbar lolu xolal set wuñ ko sax kon gis nga euh, lolu lipp di kenn nga hmm. fe kon andi mom rëy na rëy go xamni hmm. da wara am émission spéciale bu addiye rek la deug na hmm. ndax day bari ay coow te gisuma benn aaya ci alxuraan bu ko araamal. te la laay wax nag. Mm-hmm. Mm-hmm. te damay dégg léeg-léeg ñeen ñi corruption la ñii ni araam na. Mm-hmm. mais ñi koy wax nag laa bëgg njox jox ma benn àddi la. bu wane ni aaya bii ni na araam na. wala nga ni xadis bi moo ni araam na. ndax ki araamal mooy yàlla ku yonentoom alayhi salaatu wasalaam. Ah, waaye keneen koo dégg suñu la araamal. loo bëggul nag mën nga ni bëgguma ko. boo la neexan sax ngay duma lekk ndawal. waaye ah. bul ni araam na. <laughs> Eh, Adi nag moom lu dagan la hmm. ba noppi dañoo am ndigal yu bari ci addiya yoo xam ne dañ ko ci joxe hmm. ak lu muy faj hmm. ak lu muy jariñ yonent bi da koo digle lu bëree bëri nee na eh, ajiboo daaya wala taradul hadiya ma nga numéro 405 ca buslaanu waaye sit ma mu ne bu leen woo ci yàlla na ngeen woote ci yàlla ajiboo daaya wuyu ji leen woote bi yàlla ajiboo daaya la fu ñu leen ci yàlla wuyu leen wala taradul hadiya ko delloo bu leen joxe addiya bu leen ko ganta téye leen nga mu ni fal addiyatu risqun min allahi addiya wërsëg la waxee mu ngi jóge ci yàlla directement ñëw ci yéen fa man fi innama yaqbalu alallahi ku ko nangu nangu nga loo xam la ko jox wa man raddaa fa innama raddu alallahi ku ko gantal gàntal nga lo xam ne yàlla moo la ko jox waaye nag daam xanaa ñu ko yellool hmm? daam ñu ko de waaw dem na sax ba te kon di bëggante hmm. kon mel bari amna benen hadith hadis bu ni bu ngeen toge jiitaay ñu jox kenn addiya na nga musal ñeneen ña. kon araamatul. ah addiya lanteel ngir ngeen hmm. bëggante. xana lool kon moy muridi de. Ya, mi na moo tax ma la damay bañ mu dama ciy bañ a dugg mu gaaw hmm. mais yoon ñu ko jox addiya sax ay yéefar ngi batay tuubu ñu te da ko jël. Hmm. waaw mu xaw xis. mu xaw xis mooy bi nekkon mesra jox na ko addiya fukki addiya ak ñeent. moo ko mi mi yaay ibrahim ci addiya la bokkon ak séeréen ci la bokkoon ak bunayra ci la bokkoon ak mbam mu tuddu yafor mbam ma dañ ko utal autour ak fasu tuddu maymuna ak baax bu tuddu duldul gis nga la ci yewi mbam mom bam mu yoon yontu da koy xool ba mu ni mbam mi noo tudd mau it sa garaaw Aliou Sall moo moo moo daraja mm. moo moo moo moo bari sañ-sañ ah mu ni mbaam mi noo tudd mun ko Yezid ibnu Shihab mbaam may wax lii mbaam mi ni ko xalaa xamoo ni allahu axraja min jëddi min min nasli jëddi sittiina imaaran yàlla génn na ci sama askanu maam man mbaam mi juróom benn fukki mbaam yoo xamante ni kenn musu leen a war ku dul ko yàlla yónni ma ngi ci ayatul ayawaan. Mhm. téere boobu. sëñ Xaadim waaw ko xam naa moom. Hmm? nee nañ ma jeex na. kon jeex na waaw kon looy looy tàggoo rek. waaw dagg na looy tàggoo rek <laughs> léegi ne kon man mbaam mi maa des ci sama fan wépp dee nañ maa ci des te yaa des ci yonent yi kon nag yàlla ma boole war ma mu allahu akbar a leeral ci yeneen émission looy tàgg euh, euh, looy tàggoo looy tàggoo jéggalu looy tàggoo émission bi a allah euh, nu bëgg cee waxtaan ak yéen rek lépp rafet sant den gërëm mm-hmm. moo tax sax dañ ko bëgg na gën a yaasal moom kañ bi première jotaay bi la waaye faw moomaat jotaay sëñ xaadim liñ fi dégg moom jotaay la sëñ xaadim tënk <laughs> ñoo ngi jégalu bu baax nag di jégalu ñëpp tey ñaanal <laughs> borom kër gi mm. sëñ Aliou Thioune yàlla barkeel ko yàggal ko moom njaboot gi ñu fiy liggéey ñëpp yéen ñor émission bi ñu leen gërëm di leen sant bu baax baax mm. ndax lu baax rek ngeen bëgg moom ngeen yéene te da ngeen bëgg ñëpp itam rek mën a jariñoo rek la su ko defee euh, ku ngeen ci invité loolu la bëgg te man Cheikh néegu la waxtaane mm-hmm. waaye bu nu waxtaane ci diine rek ay mbiram feeñ waaw bu ko fee joxe sa alal ak nangu ak gëm mooy feeñal maam Cheikh te loolu ci la ñuy waxtaanee nangu ak gëm mhm. ndax kenn ku ne bëgg ku la nangul borom kër yeeg ñëpp bëgg nañu ku leen nangul dëgg la euh, kon nag nañu waxtaan rek ci diine mu daal di génn feeñ mhm. ndax waa këram ñi kenn déggu ci dara lu lu baax mais boo leen xoolee cooloo mën a dégg mhm. ak ku ñuy mën a xas di ko tuumal maam Cheikh jàppoo ci ëpp sëtam Nah, kon ñu ñu bëgg photocopier wu rek mm. ci moom ba noppi topp seen bakkan mm. ñoo bëgg sonal nit ñi waaye du ko waa kër Cheikh mm. kon nañ leen ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal bu baax dama dégg keroog nga wax ni Baye Fall dafa doon yoon woo xamante suñu borom moo ko wagaral boppam soo gisee photocopie bii nga siy gis ñi nga xam dañ si bëgg kii ak sa daanaka du lool dafa dafa doon yoon woo xamante du suñu borom moo ko ku bëgg rek doon ci daal waaw yoon yoon Cheikh jaar ñu fa jaar yoon yi da ko joxul ñu bari eh, te dama la ni yoonu Fall du ab jeexlu ab ab ab jeex jeexluwaay la. ñu bari dañoo dañoo bëgg dem fa mu jeexale ñu bëgg faa tàmbale. te jaaruñu fi mu jaar. Hmm. waaw ndax ba muy ñëw li ko dal yëpp ginnaaw bi dalu ko woon. Hmm. waaw bi mu ñëw hmm. daa dem ba jeexal. yoon yi ab jeexluwaay la. léegi nag gars yi ñëw fekk fa mu yem ñu bëgg faa sul aw yoon duñ mën a dem. mënta ndax garab bu ne ca moom boo ci bëgg yëg da ngay sonn. jaar fi mu jaar rek. dama defe sof sax moom. sof sax mënut tane. ma jàpp ne Cheikh Ibrahima dafa waxoon ne. maanaam lu mat a intérêt sëñ Bamba waaye kenn mënut a sos leneen waxoon na ne sëñ Bamba topp naa ko dañ ko war a toppe mhm. ba topp ko noo xam ne ku ca dooleel daal da nga cay doo loolu waaye da jëriñ kon mooy li nga wax ni ñi bëgg indi leneen mhm. waaw loolu rek de maam Cheikh moom ku baax la mhm. euh, li ma wax ci njëlbeen gi ñëpp nangu nañ ko kon daal noo ngi ñaan euh, nu bàyyi xiw xel bu baax a baax euh, bañ a saboté mbiram bañ koo jéem a yàq te xool fi mu jaaral te ku ci xamul mbiram it nga maandu ci ba ko. dëgg la alhamdulilah waaw man de fi nekk man damay julli damay war sañu ma ba waxtu. Mm-hmm. waaw mm-hmm. sañu ma ko xalaat ren. Mm-hmm. lépp lu ñu jullee maa nga ca. waaye buñ koy fay lii mu am. man dañ may fay la ma nekk. man nag ginnaaw moom ma aljina moom ma sawara du ma sàkkal kenn ku fa jëm ndax sama jëm leeragul man. dëgg la dégg nga ko. man mii wax yow. fa ma jëm leeraguma. damay yaakaar nag yàlla yonent bi Cheikh Ahmadou Bamba. mooy sama yaakaar ji gën a kawe. waaye mënuma ni kenn yow fa nga jëm. kon nag. loo moomut. Mhm. te dañ la cee àtte. Mhm. bul ca siis. yàlla mu nu boolee adduna ku ne may na la cër. te suñu borom ku ku yaatu la. Mhm. ni mu def ba may mala yi àjjana. mala kenn suuraale ko woon. dëgg yàlla dee laaj ñëpp te yow ma xam kenn ko laaj moom. waaw kon ku ànd ak waa ji baax di ko liggéeyal kay boo ko xamul maandu ci ne saxalwaat naa de <laughs> jërëjëf sëñ Khadim jërëjëf jërëjëf moom de tey moom émission bi moom li nga wax euh, maanaam fukki émission yi ñu tënk si benn jotaay la tey bi yaatu na lool te am solo sëñ Khadim tey moom daa fekk mm-hmm. yaram xaw a kii waaye moom xam naa xam naa waaye nag sant nañ baax ndax suñu xel dal na bu baax li mu fi wax ci maam Cheikh Ibrahima fal doon na loo xamante ne bii lu leer nañ la te tek na ko ci mm. argument yu leer waaw ci alquran ak euh, sunna su ko defee ñu ci jëriñu bu baax a baax tay ñaan yàlla mm. ñëpp jëriñu ci dëgg la amina alhamdulillah di ko ñaan baax suñu borom defal ko ndam xéewal ñaanal tam sama borom dimbali ko mm. ci tay bëgg bëgg cheikh ibra ba tax mu ñëw ci jotaay bi ak wër loolu bëgg li muy jëriñe lépp mm-hmm. yàlla bu la ca dara ump amin doole maam cheikh ibrahima fall sant nañ bu baax a baax mm-hmm. sëñ tubaa waxoon na bëgg la ibra fall ngir li ma bëgg mbaa ngeen bëgg ibra fall ngir li ma ko bëgg mbaa mm-hmm. ngeen bëgg ibra fall ngir jéem maa bëgg te comme sëñ Tuubaa joxoñ nañu Cheikh Ibra nag mm-hmm. kon moom mooy ki nga xam ni li ñuy toppee sëñ tubaa niñ mën a amee dara mm-hmm. moo ni ko jàngal te loolu mooy yoon wi mu jaar te sëñ Xaadim li ñu ne ko ñoo ngi sant bu baax mboolem ñu doon topp bu baax suñu kilifa yi nga xam ñu ñuy topp fépp ci àdduna bi nag ci réew mi ak ci bitim yëpp mm-hmm. di ñaanal waa daayira jës bu murit tàmbale ko sëñ Modou Fall mu sëñ di Yaasin suñu borom yàgg ko bu baax te wér ko ak mboolem njaboot gi yëpp ñu àndal liggéey bi mu ne saa su ne ñu ngi soññee ci daara ji nga xam ne Serigne Cheikh Jëm moo leen ko sant muy daaray alxuraan li ñuy def ci Jannatul Mahwa ci Baye Fall ga liggéey bi ñu ngi ci di ci ziar baax waa fédération bi nekk Thiès. ak euh, fu mel ne Daaru Xuddoos ca Mbora ak mboolem li ko wër yëpp di jàmbaar yoo xam dañ ci jàpp saa su ne itam di ziar baax mbooleem équipe Jazboul mu bépp nag mm-hmm. bàyyiwuñ kenn di ziar mboolem mbokk yi nga xam ne moom la am na doon liggéey bi. di jiital ci nuyoo ak ziar yëpp ak ñaan yi suñu àll yi ci sama borom defal ko ndam. ci barke jotaay bi. ak mboolem ñu bokk liggéey fii ci bërëb bi yëpp. amiin amiin day jaajëfal baax suñu àll yi. naan sa sa jëmm ji lu ko lu lu lu ci tàbbi rek Cheikh Ibra la. ndax moom moom waaye nag. Euh, moom kay moom force Cheikh Ibra ma ñëw tey. mu ko xam nañ ko bu baax waaye waaye leneen lu mu doonoon kay damay joxe. wallaay waaye nag waaye nag moom. na la ndax tey moom naa na la Cheikh Ibra kattanal ndeysaan te te te kàttanul nu bu baax doole maam Cheikh Ibrahima Fall di di di jotaay tey bi nag di si beral ziar bu baax a baax euh, Baye Dergi mm. Baye Dergi di ab euh, suñu mbokk Mbaye Fall mm. Baye Alioune Diallo nekk ca Paris vingtième mm. euh, kàddu ko ziar yooyu nag di doomam di gorom soxna Marème Mbacke moo ko yóbbante mu ngi koy ziar bu baax a baax di ñaan bëggam ci Cheikh Ibrahima yàlla nay dolli ko saa su ne kon Baye gi ñu ngi lay ziar bu baax a baax sa doom sa sa sa sa sa goro sa lépp soxna Marème Mbacke mm. euh, di it sunu doomu ndey ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom soxna Marème Mbacke euh, sëñ Clédor Mbacke Ousseynou sëñ Ousseynou Mbacke Clédor ñu ngi leen di ziar mboolem rek ak mboolem njaboot gi di bég bu baax baax sëñ moomu di ci profito di ziaraale bu baax baax sëriñ Cheikh Fall Khady Gueye mm. euh, ca jëwriñu maam Cheikh ibrahim Fall ci Paris mm. euh, borom association lampe keur Cheikh Ibra mm-hmm. ak mbollem ñi mu àndal liggéey bu reuy bobu ñom Baye Alpha Touré mm-hmm. mm-hmm. ñom Baye ah, Cheikh Gueye Garab mbollem mbokk yi mu nekkal fofu rek ñu ngi leen di ziar bu baax ci pass pass bu reuy bi ak euh, liggey bi nga xamanteni naal nako diko liggeyal ko mam Cheikh ibrahim Fall yalla nako suñu borom kàttanal mom sëñ Cheikh Fall Khady gay ci Paris ngir mu àggale ko ak sagom ziar mbollem mbokk jullit mbokk talibé sëñ Khadim tay suñu xol bi sedd na dañ lay ñaanaat nag boo xamante ni hmm. maam Cheikh Ibrahima Fall hmm. bu baax a baax hmm. ndax ndax ndax ndax waroon naa xaj ci jotaay bi waaye gis nga jotaay bi ni mu amee solo ni mu ni temps bi xatee waaye incha allah dinañ amaat occasion ngir ah, yaatal loolu ziar bu baax mbokk yi ñu àndaloon ci émission bi Baye Momar Diagne euh, ci caméra bi àndoon ak soxna Fenda Kambaay ni kiit sëñ euh, Sadikh Diallo euh, di jaajëful baax El Hadj Cheikh Gueye si jàppandal gi moom it si wàllu caméra yi waaye si wàllu réalisation moom day féete ñaari côté yi di ziar baax a baax Serigne Dame Thioune mi nekkoon moom it ci régie bi réalisation bi ak euh, euh, Serigne Cheikh Anta Niass si wàllu son bi ak vidéo bi jaajëfal leen bu baax a baax jox leen tëje beneen talaata si beneen émission Jazboul Mouride wa axiru daawaanaa ne alhamdulilahi rabbil alamin seen fay amiin